beneen jiyee moo dal di ci rek ci lu ñëwal tournée économique bi nga xam ne njiitu réew mi mu ngi koy amal ndax ginnaaw l'accident bi ñu nemeekoon ba suñu naataango yu bëree bëri da doon ci ñàkk seen bakkan ci diwaanu fa nga xamante ni moo di Louga waaye nag léegi li nga xamante ni jot nañ ko ci nemeeku wala ci diwaanu Tambacounda li lay yoon nag mu ngi dal di amee ci diwaanu Fouta bokk na ci l'accident bi nga xam ne ñaar ñu siiw wala sax ñu ràññee ko moo di Mbaye Pékh mi nga xamante ni jar na ci ñàkk li nga xamante nii moo di ay gaañu gaañu ndax ginnaaw bi nga xamante ni moo ci dal rek maanaam këpp loolu nag dal di indi moom moom leen mu dal di am li nga xamante ni moo di ay gaañu gaañu ci bopp bi moom daanaka sax bokk na ci jëmm yi nga xamante ni ñoo ci jot am li nga xamante ni moo di ab gaañu gaañu bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne am nañu ko li ni mel nag am na leen loo xamante ni mën na ko jokku ci li accident bi ni mel ndaxte ñeneen ñi nga xamante am nañ ci moo di a Bara Dolly moom tamit dal di ko cité mu di bokkandoo ci nga xam ne moo di parti boobule loolu nag nekk jëfin boo xamante ni moo ngi daal di am ginnaaw ab nga xam ne njiitu réew mi ko te mu doon am rek foofu la ci diwaanu Fuuta kon nag mu mel ni ne ñaar ñoo ci dal am li nga xamante ni moo ci nekk waaye tamit am ci li nga xamante ni moo di ay gaañu gaañu.